ci àdduna ak lépp lu ñu def ci àdduna ñu ngi koy sante sëriñ Cheikh Ndigal Fall Abou ndax moo ñu may doole ba ñu ñeme bu dul woon moom tey jii dañuy ñëw ci jataay bii ba fi mën a taxaw di wax sëriñ Cheikh Ndigal Fall nag nit la koo xam ne bu ñuy woote lii ñu woote tey maam Cheikh Ibrahima Fall ak développement moom mu jëwut dërëm bi mu réer ndax lépp luy yokk yoonu maamam wi ak luy jëmale yoonu maamam wi kanam ak luy jëwee ndawi Serigne Touba yi kanam ak luy jëmale ndawi Serigne ndawi maam Cheikh Ibrahima Fall yi kanam ak luy jëmale ndami ndawi jaami yàlla yi kanam Serigne Cheikh Ndigal Fall bis bu sekk mi ngi ci feddali laxasaayam dañu ci soññ ñun ndaw ñi di soññaat taalibe yi ci lépp loo xam ne luy jëmale nit kanam ak lépp lu jox luy jëmale nit ci wàllu sëriñ bi sëñ Cheikh Ndigal Fall mu ngi ñu ci soññ tey jii nag jataay bii jataay bu ma neex la ndax yaakaar naa liggéey bii ñu ngi ko tàmbali 2009 ba tey jii am nañ ay réalisation yu mag yoo xam ne yàlla dogal na def nañ ko ci ndax boo leen di xool ci kuréel gi ni muy doxee Mourad Touré Talibi mondialisation partenariat Maam Lamp Fall ci kanam réseau câble yi nekk ci dëkk bi bokk nañ ci ndaw ñi nga xam ne ñoo ko fi njëkk a installé ci dëkk bi yaakaar naa guddi yi ñu dol tey li ciy liggéey war nañoo jege pile de deux cent cinquante personnes ñu demaat ba mu yàgg ñu xalaat xar matériel xarala yu bees yi nekk ci àdduna bi ñu jël ji. lu mel ni matériel électronique lépp lu jëm ci wàllu matériel de froid et cetera et ñu wuti suñu partenaire ci biti ñu ñëw di ci financer taalibe Serigne Touba yi ba 2018 jàppale nañ ci 66 vingt 84 mille plus de 208 personnes yoo xam ni kenn ku nekk matériel bi nga am projet bi moo la ko jox ñu dem ba yàgg ñu xalaat geneen kuréel goo xam ni mu tudd waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall maam Lamp Fall ca kanam jàppoo jëf-jël ànd liggéeyal xaadim rasul ci jaami yàlla yi Touba ca kanam loolu lépp bañ koy def ñu xalaat ni dëkk bi manqué na ndaw ñoo xam ni amuñu formation professionnelle manqué na ndaw ñoo xam ni xëyum ndaw ñi manqué na ci dëkk bi manqué na ndaw ñoo xam ni ñu dimbalewaat leen ci éducation de base bu sëriñ Touba yi ba lépp luy jëmale nit kanam ak luy yóbbu nit ci kanam ndawi sëriñ Touba yi bokk ci ñi koy def. bi 2018 jotee nag sëriñ Cheikh Ndigal Fall ci njàmbaram mu gis ñu doon góorgóorlu mu taxawal ñu genn kuréel goo xam ne mu ngi tudd Mourad tuuru taalibe yi mondialisation projet borom Ndigal Fall liggéeyal yàlla ci jaami yàlla yi ci kaw liggéeyal yàlla ci jaami yàlla boobu. dem nañ ci ay réalisation ci Touba Fall diwlin gii ngeen di gis ñun ñoo koy bay ci Touba gerte gi bu ñu ko bayee ba pare ñu transformé ko bu ñu ko transformé ba pare indiwaat ko ci mbokki taalibe yi ñu koy jariñoo kon loolu lépp ci cadre développement la bokk am na tamit lu ñu naan bay dundee lépp lu jëm ci café Touba Fall ñu ngi koy defaree ci Touba Fall lépp lu jëm ci céréale locale bi ñu ngi koy defaree ci Touba Fall. am nañ suñ yeneen partenaires yoo xam ne ku leen soxna Ndeye Marème Mbacké ak sama bàyyi jëwriñ bi sopp Serigne Saliou mi bokk na ci partenaires yi nga xam ne ñu ngi jàppale ci bay dunde bi ak yeneen ak yeneen loolu lépp mooy wàllu bay dunde bi ndax autosuffisance yoonu murit pour ñu réussir ko li ñuy bay ci réew mi war lañ war a jël fexe ba taalibe yi lépp lu ñuy dundee mu nekk loo xam ne ñun ñoo ko moomal suñu bopp ñu dem nag ba yàgg ci baaxu sëriñ bi ñuy dox ñu gis ay partenaires yoo xam ni ña nga jóge ci bitim réew tey yii muy sama gaay yi taxaw nii ak man ñu naan ko Mouhamed ak suñu mbokku japonais yi nga xam ni dara ñoru leen pour gunge projet bi ci lépp lu jëm ci wàllu développement ak lépp lu jëm lu jëmale nit kanam ak lépp lu jëm ci wàllu bâtiment général ak lépp lu jëm ci wàllu organisation ak lépp lu jëm ci wàllu formation professionnelle ak lépp lu jëm ci wàllu renforcement capacité yoonu développement ndaw Serigne Touba yi loolu ñoom acte bi ñu am acte bu noble la ndax ñoom bu ñu daanee téeméeri entreprise yoo xam ne entreprise japonaise la ñu dem ba seen xel dajut fenn fu dul Touba kon ñun waa Touba war nañ leen a delloo njukkal te bu leen neexoon yamale projet bi Dakar duñ leen mënal dara kon bu seen xel demee bañ dañu daj Touba pour bëgg indi seen i force ak seen i doole ànd ak ndawi suñ Touba yi jàppale leen ci ci formation professionnelle jàppale leen ci renforcement capacité waaw jeunesse bi jàppale jaajëf yaram jàppale leen ci lépp loo xam ne ci wàllu fournisseur boo xam ne dafa jóge fii Sénégal war a dem Chine buñ demee ñoom dañ la accompagner jàppale la ci xeetu matériel boo bëgg ñu orienté la chargé la sa conteneur ba xam ne kenn dootu la mën a nax ak yeneen ak yeneen kon partenaires yu mel noonu bu ñëwee fii Touba tey war nañ leen a sargal dafa leen avant premier bu mel nii tey bañ xam ni maam Lam Fall ci këram ànd ak Mourad Tourou Talibi mondialisation projet borom ndigal borom ndigal Fall moom lépp ku ko xam xam ni moom ci développement rek moo ko ñëw